no senior manager three three three wa ando ah, ringut mo dele nungol ngon nuri gisa simitas wari nga hanbe sona sikaba nyamomu ne nyamo ba leba credit bunu jembe ka munu koñ abe <laughs> ah, jobe message mustafel d 35 yona kabana ndibu tinken hmm? ubanjanu boñ ubanjanu boñ yo manager 333 banjari not mo chevle tok dia aw fana ubaju credit ke di la ngeli mm -hmm. babaju karta wicen wunkul wa pulle wankure gem q power scratch card no jogo karta o aw nome o nu tutul wan tutul si nombas on nu safel si nombas dim e nayi o safel jaw banja nu boño mene jaw tri tri tri piw se panku boñili code code cila yonotu mbengare munu kandi kas paweli rek yoɓetaya kama q power tey kay maa bi suma bos la bii bii kay suma bos la. waaw lii courant nga naan cash power. bi eh, nga xamee eh, ne amuloo cash power bu tey lu tax nga naan ma yow seetaan see ko sa kër. maa ne defuma ndànk maa bi dafa important trop ci man te dama koy seetaani de. man mii sax suma kër laa dem seetaani ko. waaw waaw incha kaay e dugalal ma suma cash power bi yow. yow lii lan la nii. Qcell dafa indi lu air. Ah. lu ñoo a Q power. ak Q power mun ngaa recharge sa cash power su ma ko bëggee am suma kër nu may def. <laughs> loo soxla rek mooy. waaw amal sa Qcell line. soo ko amee ba pare. nga registré si sa mita bi. waaw mun nga see registré bi ñaari mita. waaw soo registré sa mita bi ba pare. Hmm. da xayma ñaata nga bugg a jënd nga yónnee ko si tri tri tri dégg nga su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee da ngaa xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa code nga loot ko am sa cash power. sa lampa taal sa télé taal sa kër taal. xam nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal ñu si gaa. waaw li ma leen toog de toog de ma leen di wax. kiwsel daal moo di ku ko ñàkk dootul ñandu waaye kiwsel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. fayee gis nga lii warga bii laa lay fayee mooy tabaara warga mën nga cee gagné flat script saaku maalo galanu diwlin seykul ak rajo ak li nga xamante ne mooy mu bàyyel tabaara warga bii ubbil dab sa wërsëg di bali ma rek baal ma am ma may la ko raful baan boog on the fifth July ca diwaanu bu ba zone on the sixth Brikama FM bi on the seven faro feña pare leen on the eight waa ba te ana lu ngeen toog di xaar di nga am ndam saaga twelve paquet moo la ciy bokkal bokkul ak li nga xamante ne mooy ngay ubbi tam sa wërsëg flat screen saykul rajo saaku maalo galanu diwlin ak mobile bi laay xamoon naa ne tabaara war nga di nga am ndam man la ma raan a jàll maa Make a sensation with XXL. to sensuality with XXL. Get concentration with XXL. Go party with XXL. Great performance with XXL. Seduction with XXL. Get endurance with XXL. More vitality with XXL. High energy with XXL. <laughs> Show your power with XXL! Produced by Banjul Breweries Limited. Special offer $20. Updates, updates. Apex Optics, sole suppliers of prescription contact lenses in the Gambia. Now at Apex Optics, 40% discount of all contact lenses, white, tinted and cosmetics. Dress your eyes in your favorite colors. Enjoy the exceptional clarity of vision available only through contact lenses. Also, 20% discount of all other purchases. Offer ends the 29th of June 2013. Apex Optics. Apex Optics at Independence Drive Banjul and now also at the village Senegambia area in Kololi. For information, you can contact us on telephone 422 6124 or 394 2010. Apex Optics, provides providers of quality eye care and all types of lenses and frames. Apex Optics, truly perfecting vision.